man la seen xarit Ngagne Dieng di municipal disaster management coordinator comme ni ko Mor Cissé jógee waxee rek foog naa ne ñun ñu fi tase yëpp dafa am lu ñu tase fii nii ñaari at si ginnaaw dafa am yàqu-yàqu léegi rëy boo xam moo amoon si Gambia bi fii nii di 2022 flood so 2022 boobu noonu bu ñu yàqu-yàqu bi amee ñun suñu office den sàkku woon ndimbal bi sàkku woon ndimbal soo ECOWAS ñoo ñëw ne léegi dinañ ñu dimbale ñu meg soone ñu nga xam ne ñoo yàqule ñu seet naka la leen di dimbale so dimbal boobu noonu moo dimbal bi nag dañ ko xaaj ci ñaari fànn dafa am lu ñoo ooyee cash transfer ak non food item cash transfer bi mooy xaalis xaalis lañ nekkoon di joxe te da nga gis ne xaalis bi TMC fii nii ñu ngi am juróom-benni téeméer ak juróom-benn fukk ak benn nit ñoom ñëpp ku nekk war na moo am juróom-ñeenti junne mooy nine thousand dollars juróom-ñeenti junne yi dañ leen ko defal ñetti xaaj parce que nekkoon di yónnee three thousand three thousand three thousand léegi ku nekk war na moo jot sa juróom-ñeenti junne parce que transfert nañ xaalis bi yëpp lu des mooy. moo tax ñu boole fii tey parce que beneen fànn bi mooy pour ñu jox leen non food items non food items nag soo leen ko déggee mooy bagage yu nga xam ne dañ koo jëfandikoo waaye nekkut lu ñoo lekk waaye dinañ ko mën a si suñ këriñ si demee ni ay bool yoo satala ay saabu madaar nga xam ne daal suñ ko jëfandikoo suñ dëkkuwaay bi mun na moo mun na moo set ba pare dinañu aar si yenn jàngoro yu sew yii nii. tey loolu lay ñëw pour jox leen ko fii nii KFC nag da gis ne ñun dee sant yàlla parce que ñu ñu war jox yëpp si Gambie bi ba mu daj ñun ñoo ëppale nit Gambie bi ñu ngi jox ñaari junne ak juróom-benni téeméer ak juróom fukki nit waaye da gis ne si pourcentage boobu noonu juróom-benni téeméer ba ak juróom-benn fukk ak benn yëpp KFC fii lay jógee soo lu si des loolu la yeneen six wala seven region si séddoo. big partnership with the Catholic Relief Service, CRS, and in Future in our hands, the Gambia. So, the living in the work, we can make so go aketa. So, kodo fananga min diyalla niaje nga diyalla nyambi wala nyinti on conditional cash transfer on conditional cash transfer wala nyinti ko kodo diyalla le bari ma falle ko diakuya an ba dundi la jineto ya diyalla la don pour momo munembo ila suula kooti ila sikkiro kono ila korla kono ya dundi je bari donc fo mo laftol min da pour ya dundi balu wala karola balu a karola wala ya tinnaga ko ɗo ñim fomo diyalla sa ba jelo ko ñim fomon kana min diyalla mi yalan ko manke balu wala karoti altewol yusnoo bugol kono anin kordal kono pour kam fan tan kañi kuram mesen ndimon sa en wato ta